voilà donc mu nekkoon suñu dernière musique euh, du jour ñu àndoon ci ak euh, Ismaël Lo ci euh, wéyam boobu di Tajabone mu nekk nag occasion boo xam ne dañ ci profité rek souhaiter à tout le monde une très bonne fête de Tamxarit nouvelle an bi aussi ñaanal ci ku ci nekk rek li nga xamante ni mooy sa mbëbët yàlla defal la ko mu doon lu la jigan donc comme ni ma ko waxee tout à l'heure tey euh, on va parler de tout ce qui est urbanisation inondation lépp loo xam ne daal jëm na ci wàllum euh, assainissement et tout et pour ça dañuy dalal suñu invité mu nekk rek euh, Souleymane Diallo nekk géographe nekk urbaniste bokk tamit fi nga xamante ni mooy ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique donc damay bàyyi tey Sadio nga daal di dalal suñu invité ñu daal di tàmbale waxtaan bi alors euh, bonjour monsieur Souleymane Diallo. géographe déjà comme ni ko Fatou waxee. te Fatou yow laa jël ak euh, humaniste en même temps. te ñu lay teewal fii ni suñu Label TV ngir waxtaanee actualité surtout euh, di am si biir Dakar fii nii si wàllum taw bi ñu bàyyi la nga dara si jàmm. maa ngi lay jaajëfal euh, di rafetlu invitation bi di wax ni kontaan naa parce que bu ñuy wax inondation Sénégal boo invité géographe mbaa nga invité urbaniste je pense que ni war nga ci mën a am. lu la doy. Euh, di wax nii aussi dama am chance ci présentation bi xëy na su mu leen ko waxee dañ leen amal euh, ouverture mm-hmm. que programme décennal yàlla dogal na bokk naa ci équipe bi doon def élaboration programme bi en 2012 donc euh, moo tax ñu sawar ñëw répondre ci invitation bi. très bien gis taw yu metti am ci week-end bi rawatina vendredi ay moor sax am si ay doomu aadama ñàkk seen bakkan. Mm-hmm. yow boo amoon benn jàngat boo ciy def. askan wi kenn mënul dem kenn mënul dikk ñu bëri sax daanaka ci autoroute bi lañu ñu la nuit. dëgg la benn jàngat booy def ci situation boobu lan la. Euh, dañ koy euh, dañ ko dund ñun sax dund nañ ko muy métit aussi saa yoo gisee ñu ni am na bakken bu rot surtout si catastrophe mel day day nekk lu metti day metti si askan wi mais aussi day gën a metti si njaboot yi donc ñu leen di jaalee di leen masawu euh, di wax ni aussi li xew vendredi. je pense que nii dafa xaw a entre guillemets exceptionnel parce que spécialiste du ñu wax ne c'est exceptionnel mais xaw na exceptionnel si suñu contexte. parce que je pense que ni bi mujj bu bu ñu bu mel nii bu ñu am ñu ngi ko amoon 11 août du 11 au 12 août 2012. Ah. et à 146 quelque chose comme ça là on est à 128 mais intensité bi dafa fort ci benn laps de nekk taw boo xam ne bii amul dënu amul ngelaw muy taw ñu recevoir quantité ndox bu bëri ah, boo xoolee jàngat. mois de mais déjà mois de mai amoon ñu information climatique que ren day taw te risque amoon na que ñu recevoir ci suñu dëkk yu mag yi taw yu mel nii euh, ñu waroon ci def nag euh, ay anticipation yu bëri xëy na ci kanam tuuti ñu wax est-ce que service yi liggéey liggéeyanul mais en tout cas ñun du mbetteel si ñun déjà le 6 mai on save que daanu am taw ren ji daanu am taw bu bëri te kay risque amoon na si suñu dëkk yu mag yi que ñu am recevoir quantité ndox yi que mën nañu ne ay désagréments. léegi lan moo tax jëluñu les devants alors. maa ngi ñëw euh, li am li am inondation la parce que da nga recevoir quantité bu ndox nga am nga ay réseau mais réseau yi amuñu temps évacuer ko beneen bi nit ñi kenn joxu leen information ndox mi fekk leen ci yoon wi. bu li fekkee si yoon bi amuñu fu ñu dégager amuñu fu ñu génnee mais boo xoolee vendredi la taw ñëpp nekk ci tali bi auto ñëpp bouché mais tey boo demee nit ñi ñu ngi dox si yenn accès yi sauf peut-être ay yenn zones yi ay zone de captage yooyu loolu beneen problème daan si dellu si mais boo xoolee par rapport ak quantité ndox bi nga recevoir tey quelques jours après t'as plus d'eau cest à que l'eau a été évacuée ça veut quoi ça veut que am nga ay réseau maintenant est-ce que problème de dimensionnement la est-ce que problème de curage la est-ce que les gens ont curé à temps est les gens ont fait le travail de préparation nécessaire ça on revenir au cours de l'émission d'accord voilà donc euh, comme ni nga ko ni nga ko gisee ah taw yi euh, vendredi bi bëri na def dégâts yoo xamante ni euh, vraiment c'est déplorable donc mën na li ma li ma bëgg a xam en en vingt ans mhm. sérieusement est-ce que plan Orsec am na am na am na njëriñ waaw boo xoolee boo xoolee su fukki at yi fukki at yi ak ñaar plan Orsec ñetti yoon dong lañ ko fi lañ ko fi déclenché trois fois parce que c'était en 2012. 2009 parce que les plans Orsec on les on a commencé à les instituer en 99. Ah, boo xoolee ci àdduna bi nu muy doxee ak nu ñu gérer catastrophe tey outil la boo xam ni dañ ko commencé dépasser parce que de plus en plus ñu ngi wax plan de contingence. plan de contingence c'est au niveau département lañ koy instituer moo gën a efficace moo gën a ciblé. par exemple plan Orsec du ñu koy déclenché dañ koy déclenché le ministère de l'intérieur ko les préfets ñëpp dugg en jeu c'est boo ñëwee ba léegi ñuy wax déclenchement plan Orsec te nga def programme bu def 10 ans mën na la xaw a jaaxal mais loolu loolu état la parce que état dafa am uti yoo xam ni bu amee lu ko lu ko bett mën ko faw nga am uti boo xam ni da ngay entrer en jeu loolu terewul dara que programme décennal muy dox yeneen structures yu am ay projet ñu koy continuer doxal mais ci laps de temps bi nga xam ni da nga am lu ni këtt ni jonn nga am outil boo xam ni da koy da koy mettre en œuvre et je pense que plan Orsec loolu mooy njëriñam programme euh, décennal boobu sa ñëwaat si tuuti. gis nañ ko dugg nañ fay milliards yu bëri. ba récemment sa nit ñi ñuy génn si yenn réseau yi naan programme boobu xaalis bu bëri duggoon nañ ko si est-ce que am na suivi est-ce am na évaluation par rapport situation bi ñu nekk nii. waaw xam nga programme décennal boobu dama ciy sawar a wax parce que dafa am ñetti mbir yu nuy wax si programme décennal d'abord su ñu waxee chiffre bi dañ ni programme bi dañ ko financé à 766 milliards maa ngi koy wax seen plateau mën ngeen def écho le programme kenn mosu si def 766 milliards. ñaata lañ ci def. waaw maa ngi ñëw da ngay def programmation soo defee programmation en 2012 ñu ni xayma nu programme bi war na jar li ñu xayma yëpp war na jar 766 milliards et des poussières ñu dem présenter ko le chef de l'État parce que diggante diggante août 2012 ak le 19 septembre bu ñuy def conseil présidentiel 2012 di adopté programme bi en fait du woon sax programme bi yëpp lañu le gouvernement bi adopté woon dañu jël la partie. parce qu'on était dans l'urgence programme bi ñu ko séquencé a trois phases phase bi njëkk mu jar 66 milliards le président dafa jël mesure si saa si ni adopté naa phase bi muy 66 milliards ñu commencé doxal phase bi mu ni mu joxe instruction mesure mu ni programme bi dem leen ngeen mettre en place benn comité benn structure de pilotage boo xam ne bi dañ koy rattaché à la primature loolu kenn mosu ko def dinaa ci dellu si léegi ñaata milliards la ci def ñëw ngay wax les les dernières estimations dans le programme on a mis quelque chose Parce comme. ñu ngi dégg ay 744 milliards et des poussières. en attendant en attendant maintenant d'avoir les derniers chiffres parce que quand on fait des dépenses publiques da ngay am lu ñuy wax loi de règlement mooy tax ministère des finances wax la effectivement li ñu ci def mais récemment. dafa am benn étude bu mag bu Banque mondiale def qui est un partenaire du Sénégal mm-hmm. c'est cette étude là qui a permis de répertorier l'ensemble des projet réalisés dans le cadre du programme national mu nekk quelque chose comme près de 108 projets cent et quelques projets 108 j'ai pas le chiffre exact mais côté yooyu la parce que programme ay projet yu bëri la ay structures yu bëri mooy ay ADM ay APIX ay AGEROUTE ay ministère de l'assainissement ay ministère euh, de l'urbanisme ay ministère ñoom ñëpp kenn ku nekk am na structure boo xam ni yaa ngi doxal lenn ci sa programme loolu ci programme décennal lañ ko lañ ko lañ ko kon 800 milliards yi ñuy wax. 800 milliards yi. dégguloo li ma la wax li ma la wax kenn du ko weddi ku ko weddi na ma wax leneen dama dama lay wax loo xam ni maa ko wax exactement concrètement ñaata milliards lañ def ci plan dégguloo li ma la wax une politique publique da nga koy évaluer aujourd'hui le programme n'est même pas terminé mu ngi nekk en cours il y a yu ñu terminer yooyu mën nga xam ñaata la am na projet yoo xam ñu ngi nekk sax en cours mm-hmm. donc il faut en un moment donné ñu bàyyi état service état ñu def seen travail d'évaluation et le état bi dana joxe exactement le coût exact mais en l'état actuel il n'a jamais été mis 700 milliards 766 milliards dans le programme décennal c'est un programme qui est en cours on a exécuté à de 60 pour cent le programme yaa ngi dégg tey le chiffre bu gën a jege mooy 444 milliards ak quelque chose mooy li gën a jege te boo xoolee nit ñi sax bu nuy wax ci programme bi ay station la ñuy wax ay réseau de drainage de drainage. Hmm. loolu la ñu lay wax loolu ngay gën a dégg. kon 800 yi ñuy wax ah, fake news la maa ngi ñëw du fake news c'est c'est-à-dire que c'est une manière de communiquer maintenant. Hmm. qui veut que les gens donnent que c'est montant qui a été prévu. Ah. pour le programme. mais pour le moment 400 lañ ci defagum. maa ngi ñëw waaw kay gis nga bu ñu déggantee rek. effectivement oui wax day leer. on li ñu prévoir lépp kenn dépensé ko. yàlla y a le chiffre prévu, il montant exactement dépensé. Mmh. Et mhm. même ce montant-là, il peut évoluer. Et il doit même évoluer. Parce que les projets sont en cours de réalisation. D'accord. Oui. Mais beneen bi programme décennal soo ko bëggee comprendre mhm. ñetti banqaas la dafa am benn banqaas bu bu am solo bu ñuy wax aménagement du territoire am beneen banqaas bu ñuy wax restructuration et relogement am beneen banqaas bu nuy wax gestion des eaux pluviales soo xoolee puisque zone yu gënoon metti 2012 zone yu gënoon métti c' était Philippe Maguilène c' était Ouest Foire c' était Pikine ñetti mbaar c' était Guédiawaye Wakhinane Nimzatt c' était Dalifort foofu projet projet dafa def ay projet yu mag yu am solo rien que phase d' urgence bi rek projet bi dépense waroon na dépenser près de 66 milliards pour zone yooyu tey boo déggee dans le jargon maanaam lii les points chauds dootoo si dégg Pikine dootoo si dégg Guédiawaye dootoo si dégg Médina Gounass dootoo si dégg Wakhinane yooyu déggatuloo ko mais zone yooyu ñu ngi am ndox maa ngi ñëw non même su amee ndox c'est résiduel mais quand même 800 milliards 400 milliards non maa ngi ñëw war nañ dépasser inondation non maa ngi ñëw xam nga xam nga maa ngi ñëw dafa am dafa am beneen volet ma ñëw je suis pas là pour défendre mais suis là pour dire la vérité la vérité c'est que ces zones là nga xam ne moo nekkoon les principaux points chauds tey kenn téléthon wu leen parce que on avait état day fagaru et l' sax a été très généreux à anticiper pour déclencher le plan Orsec c' est pas prématuré c' est très bien ça permet que de, mettre en branle tous les services de l'État moo xam sapeur-pompier la moo xam l'administration territoriale et tout pour recenser et pour prendre les mesures conservatoires tout de suite pour évacuer les eaux parce que problème lan la problème de mobilité la moo moo doon posé wu te umpaliwuloo ni Ndakaar bu nee taj Sénégal yi taj nga loolu et ça s'est donc bu loolu bu xewee Dakar quel que soit Alpha da ngay jël tout de suite des mesures pour que Dakar nga désengorge bu fekkee deux trois quatre jours après y plus d'eau si taw bi bu mu méttee la moo waral toujours vendredi bi passé gisoon nañ ko mais avant démb vendredi bi bële jàlloon taw yu métti amoon blocage amoon na ndox yi nekk si dëkk bi vendredi bi jàll aussi même problème indi ngeen programme décennal indi nañ aussi euh, plan au sec toujours mais la moo waral toujours inondation yi Dakar problème parce que yéen a ngi wax seen biir wax ne ngeen après trois jours na mhm. cela veut dire que am na benn problème boo xam ne sur le si immédiat bi mhm. problème d'évacuation des eaux avancé dëgg loolu gis nga booy wax booy waxtaan dañu waxante dëgg les inondations c'est pas spécifique à Dakar c'est pas spécifique au Sénégal on est dans la dans les changements climatiques la ñu nekk le changement climatique mu neex na mu naq dinu daan recevoir ay pluies exceptionnelles on aura toujours des inondations ça que vous mettiez des réseaux que vous les mettiez pas ça c'est ça la yéen guy daa loolu mooy seen excuse amul excuse c'est pas Nous, ce n'est pas parce que nous sommes des spécialistes, non. Ce que nous disons, c'est des choses que vous pouvez constater par vous-même en rentrant dans, dans, les réseaux sociaux, en, faisant même votre propre recherche, pour voir qu'il y a des pays qui sont fois plus préparés que le Sénégal mais qui sont confrontés à ces problèmes. Sauf que, là c'est là où maintenant c'est intéressant de s'interroger sur le programme décennal, sur son efficacité. Mm -hmm. Il y a un volet extrêmement important du programme décennal, c'est-à-dire que c'est le volet restructuration et relogement, parce que nous on n'a pas des problèmes d'inondation liés à des débordements de fleuves ou de rivières, non. Les volcans, yooyu. Amuñu problème. Ce que nous avons comme problème, c'est que Quel est le problème Nous avons un problème de planification urbaine. Nous avons un problème de respect des normes d'urbanisme. C'est pourquoi à chaque fois que nous le disons, et ça, le diagnostic, moi je n'aime pas rentrer dans de dire qu'on a reçu tant, il faut ruisseler, il faut bassin versant. Ça, c'est un débat de techniciens. Moi, quand j'étais étudiant, on nous en parlait. Depuis, de, depuis que je suis dans le ministère de l'UNA, le diagnostic, tout il faut nga ñu rendre justice au moins au régime place parce que depuis 2012 xam nga la moo am solo ci dëkk. Mhm. bu nit amee vision bu leer mu teg ko xam nga programme décennal dafa am moo moo PSE dafa am ñaari affaire yu nu àndal yu nu yu nu am mooy ñaari programme a ngi nii gouvernement Macky Sall da koo teg ñu gën a virulent ci critique ñu ni baax na ñu ni yoon baa ngi noonu. ñu ban ak ban mooy programme décennal gis nga bu ñu tegee programme décennal en vous pouvez revérifier il y avait une unanimité autour de la pertinence de ce programme là parce que programme bi li fi góom bi doon moo gënoon métti loolu la laal alors déjà jot ngeen def euh, en dix ans. waaw 60 pour cent de de du du programme ah. Mm d' après li ñu jot a réaliser ak li nga xamante ni moo ci des peut-être mm-hmm. disons 40 pour cent. Mm-hmm. est ce que xalaat nga ni cela va nous permettre vraiment de faire face à tout ce qu'il y a comme problème par rapport aux inondations. ce qui est de dire ici, c'est que si le programme décennal a une faiblesse, et vraiment une faiblesse, c'est un problème de gouvernance, mais aussi c'est un problème d'évaluation. Voilà un programme dañ ko teg mais dès le début ñu mu am mu am ay ay ay prémices maanaam ñu teg programme bi ñu dawal tuuti ñu créer un ministère ministère de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation ñëpp kontaan mais ñu dawal tuuti ministère bi ñu supprimer ko créer ministère délégué rattaché ko au ministère de l'urbanisme mais moyens yi noonu. Hmm. benn ñaar bu ñu ñëwee 2012 2013 2014 dañ dugg ñu commencé am accalmie te loolu inondation képp ku koy jàngat xam nga ni on a une alternance de période pluvieuse sur 5 ans ak de période de sécheresse donc boo xoolee diggante 2015 2016 ba ay côté 2017 ay à partir de 2020 la ñu commencé amaat ay pluies exceptionnelles gis nga période boobu on a fait de résultats. sur les programmations des premières phases que après ñenn ñoo xam seen yoon neewul ci inondation ñoom ñoo këf affaire bi ci techniciens yi dem di wax fu nekk naan on a réglé le des inondations ah, kon maanaam boobu mbir mi dafa am ñoo xam te ne ñoo si nekk te xamuñ métier mu demee ñu këf affaire bi dem parce que c'est loolu moo indi jafe-jafe ñëw xam nga dëgg bi il faut ñu waxante dëgg il faut ñu këf wax ji dem ni on a réglé le des inondations or kenn deful ko kenn defu ko en réalité c'est-à-dire que le volet restructuration de la planification urbaine te hmm. foofu laay nga permettre ma lancer appel parce que urbaniste lañ ñun le ministère de l'urbanisme doit reprendre sa place son positionnement dans la gestion de cette question des inondations gis nga budul loolu gis nga sudul loolu hmm. dans les dix vingt ans à venir waxuma la Dakar waaye toute la zone des Niayes toutes les petites et moyennes villes yi ngay lay nekk parce que nit ñi dañu toll période boo xam ne ñaar les défis on a les changements climatiques mais on est dans des processus d'urbanisation. parce que mbir mi ci ministre de l'eau ak assainissement kese lañ dama ni la urbanisme bokk ci. moo tax man la on a problème de gouvernance on a un problème de portage institutionnel. Hmm. aujourd'hui tu peux pas dire que le problème de l'inondation c'est un problème d'aménagement du territoire et d'urbanisme et tu mets de côté wala le ministère de l'urbanisme n'est pas au premier plan. dans la mise en œuvre des solutions. mais li des ci waxtu lan mooy solution yi ngir inondation yi askan wi bu tawee. la première des choses la première des choses mooy. dëkkuwaay dëkkuwaay balaa nga ciy dëkk dañ koy waajal. waajal ko mooy planification gis nga Sénégal fii sunu autorité yu ñuy jiite jàpp nu ni planification urbaine ak aménagement territorial n'est pas un luxe que intrant la. pour que nit ñi seen dëkkuwaay mu am solo intrant pour nga am sécurité. xam fi ngay dëkk. sécurité la c'est des questions de sécurité parce que fu ñu jëm. nit ñi dañuy gën a bëre nit ñi dañuy gën dëkk ci ay ville mais loolu faaw nu waajal ka moo tax tey la politique nationale d'urbanisation c'est un impératif objectif la boo xam ne dañ ci war a gaaw ñu tëral ko te loolu politique boobu mënuloo ko def te inondation yi lijjantiwuloo ko parce que les inondations xam nga foo koy lijjantee yaa ngi koy lijjanti dans le cadre des plans d'urbanisme waxuma dans le cadre des plans d'aménagement territoire qui sont des master plans déedéet li ma lay wax la cadre de plans très précis et les collectivités territoriales da nga leen di delloo si gis nga le rôle du ministère de l'urbanisme d'encadrement et de renforcement des capacités des collectivités territoriales daf daf ko war a jouer rôle boobu pleinement ba pare bañ nag di continuer saa yoo waxee ñun la les collectivités n'ont pas de moyens ils n'ont pas de capacité il faut aller vers des de renforcer les capacités en matière de planification des collectivités territoriales xalaat yi mu ngi fi l'essentiel lu si des mooy nga mate li nga doon mm. amoo am volonté dina la jaajëfal Souleymane Diallo waxtaan wi am na solo mais Fatou xam naa dañ koy ah. dañ koy euh, maanaam boog prolongé prolongé ko ci jotaayu ndaw ñi je pense que ci ah. boobu lay lay gën a gën a yaatal gën a yaat ñu lay jaajëfal ci sa temps dafa gàtt lool parce que li ñu war a parce que sur cette question des des inondations mm-hmm. Mm-hmm. contrairement au factuel au sensationnel mm-hmm. c'est des réels problèmes de gouvernance et d'organisation tey il faut nga am tey structure boo xam ni day am dayo nga xam ni tout les autres structures yoo xam ni mën nu ñàkk bañ liggéey kooku day leen nekk seen kaw tiim leen leen ko gën a yaatal di liggéey ci beneen jotaay yàlla bàyyi la nga di la jaajëf ci sa teewaay Sadio lay gërëm. <laughs> maa ngi ñu lay gërëm bu baax tamit monsieur ami oh. Aliou. voilà donc euh, ba beneen. merci am na solo. merci beaucoup euh, Souleymane Diallo géographe urbaniste merci Fatou merci Aliou. mais aussi képp ñoo xam ne ñu doon seetaan et di wax bonne fête de Tamxarit euh, voilà Fatou ah, mhm. je pense que waxtaan wi amoon na solo lool defal nañu tamit exclusivité. parce que ñu bëri naan <laughs> milliards moom nee na du huit cent milliards quatre cent et quelques milliards la après ça dinañ jox chiffre exact bi. Mhm. en tout cas il a été pertinent pour mhm. ci leer li ñuy indil mbokk yi ñu fi teewoon amoon mbégte loolu ànd ak yéen depuis huit ba tey ñu leen di jox di daje ëllëg bu soobee suñu borom ñu leen di ñaanal nag une bonne fedd de tamxarit di wax pël yi nag ñu moytu cere ndax ñoom soow lañu voilà ah, <laughs> ah, donc merci Aliou merci Sadio merci euh, Souleymane Diallo ci euh, disponibilité bi euh, ci pertinence bi aussi ak leeral nga xamante ni rek indil nga ñu ko dina permettre suñuy téléspectateurs ak la population sénégalaise ñu gën a comprendre yenn aspects yi mhm. voilà di remercier suñu téléspectateurs yi àndoon ak ñun depuis ce matin ci suñu émission suñu matinale ci suñu Label TV ci xolu Sénégal donc bonne fête de de de Tamxarit autant pour moi bonne journée et on se retrouve retrouve euh, demain incha allah ak yeneen invité yeneen ah, dem bon après demain <laughs> vu que demain c'est c'est férié mais mën nañ ñëw suba Aliou bu ko defee ñu préparer sax en ah, plateau tam xarit def defaral leen ceeb yi tam yaay tam xarit ni ñu koy ñarit waaw donc à demain incha allah restez connectés au programme de Sunu Label TV ngeen mën ko am ci TNT euh, canal 27 ak Label radio en 99.6 waa kaa bi ak waa suñu bës ñu ngi ñëw euh, tout à l'heure restez avec nous bonne journée à mercredi incha allah. Mm-hmm.